danaa tudd nag du ñàkk ndax dafa am waaju bind ci téere Sénégal fii téere boo xam ne bu bon ci ahlu suufi yu la bon ci ahlu tarixa ku ko mën a tele sars na ko te la sars ku dégg arab nga xool ko ci net bi muy docteur Ahmad Lo bi mu ko bindee ba pare ba dem Arabie Saoudi dañ ko boole ci seen borom xam-xam yu mag yi dafa àgg rek ñu jox ko grade boobu ca université bu a war a téere ba def ci bind mbindi wax ci wax ju bon ci ahlu suufi yu nee na ahlu tasawuf ngeen déglu ñoom ñëpp ñoo yem nu ñuy doxalee nee na bàyyi day takk doom doom day seyal mag rakk day seyal mag mag day seyal rakk loolu da ko caa bind am nañu ko wax mu ngi koy weddi man gis naa ko ci téeréem ba moo ko bind est-ce que loolu dëgg la waaw kooku ndax nit jar na nga toog naan docteur Ahmad Lo wax na nangam kooku mànduwul nit bu màndoo day bind lim xam booy bind bindal li nga xam te yem ca waaye li mu bind noonu amul ci suuf yu amu ci ku fi mos a gis loolu ku ko fi mos a gis te moo ko bind te yu gën yu mel ni loolu ci mbon mu ngi ko fa bind ci téereem boobu tax diisul asxaas na ngeen ko fexe te la sar sa ngeen gëstu ko parce que kuy dox ci tasawuf war ngaa xam nooni tasawuf yi ma ñëwaat ci lislaam boobu borom bi moo wax ne waman yakfur bi ayati llah fa inna allaha sariul xisaab yàlla ne baat boobu ma soxla bëgg gi ma bëgg ngeen jox ma seen bopp nit ki ma ko jox moo doon kan rasulullahi alayhi salaam gannaaw yonent yi moo doon kan saxaaba yi alayhim kan moo ko tasaare ba mu agsi ci ñun mooy aliyu ibnu ibi ibnu abi demal ci téere bu ñu wax noorul ab da danga fekk sët ba di wéy di wëy naa xam-xam bi ma yor maa ngi ko jëlee ci suma maam Xoseyn mu jëlee ko ci Xasan mu jëlee ko ci Ali xam-xam bi su ma ko waxoon dinañ ma rey surtout Ali ibn Abi Talibin moo bind lii moo way lii may wax mu ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay laa yara daka soo jëhlin fa yuftinuna وقد تقدم في هذا أبو الحسن إلى حسين ووصى قبله حسن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوسنا ولقد سحل رجال صالحون دمي يرون أخبح ما يأتوا به حسنا نقم قم بما يرمن محمد الباخر نك ستو علي بن بطالب دي دوم Abi Talib di doom ci Xuseyn di sët ci Xuseyn nee na suma maam ci laa mu ne xam-xamu or la xam-xamu wurus la maa ngi ko jëlee ci suma maam mu donnee ko ci maamam kooku donnee ko ci Aliyu yonent bi waxoon ne Aliyu mooy buntu xam-xam yonent bi ne mooy buntu xam-xam man may néeg bi waaye lii kay doy na misaal ci ne xam-xam bii ñuy waxee du lu Seex Ahmad Bamba sos sëñ Muxtaar Kunti yi soxsu ko Abdou Xaadir Jeylaan sosu ko Cheikh Tidiane Cherif sosu ko ñoom kenn indiwu ko fi kenn ku ci nekk laa ilaha illallah moom nga téye xam secret ba ndax Cheikh Tidiane Cherif am na fanweeri sëriñ ak ñett laata muy dajeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ka mu mujj nekk Cheikh Ahmad Samad Cheikh Cheikh Ahmad Cheikh Abdou Samad. moo ko jox wér da xalwooti yi mu dem aji makka nekk madina tatar kooku ne dañ maa ma gisante kenn ndax wér de wii Cheikh Abdou euh, Sama jox ma muy bindanteeg moom leetar fa màkk lañ doon bindante ñoo ko xam waaye foofu ci màkk la toogee ne yonent bee ko feeñe ne ko da kulla cheikhin ana cheikhu mu rabbika wa mu raqiika bàyyil bépp sëriñ yow Cheikh Tidiane man maay sa sëriñ maa lay yar maa lay yéegal ci yàlla gannaaw bu Cheikh Tidiane Cherif radiallahu anhu jànge ba pare làq juróom-benn fukki at Cheikh Tidiane bi muy wax lii juróom-benn fukki at yi mat na mu jàng ba pare gàddu saagaam ngi di wër sëriñ moo tax sëriñ sa bëri bu fekkoon sëriñ bu njëkk ba ca la yem du am fanweer ak ñett bu fekkoon lam doon wut amoon na ko ca ku njëkk ka du am fanweer ak ñett waaye kum ci dem nga yëkkati say mbóot jox ko mu denc ci saagam te continuer xam ne yàlla lay wut ñu koy jox ay tur moo tax tarixi tijaan na fi ëpp tur waaye tur yooyu du ko bu leen foog ne moom la wut de du yooyu tur wu nee nga ca nag waaye du yooyu seex tijaan lenn rek la doon wut mooy xam yàlla xàgg ci yàlla moo tax tur wuñ ko jox fanweeri sëriñ ak ñett kenn ku ne jox la ay sekkireem gannaaw ba la gërëmee ñaata sekkire bare na de mooy tur yi ne ci yoonu Tijaan amul sirru bu ci nekkul ci wàllu asma waaye du loolu la Seex Tijaan doon seet fan la mujj yonent bi ne ko da kulla cheikhin ana cheikhu murabbika wa muraqika maa lay yar maa lay yéegee ci yàlla loolu mooy lan yar ak yéegee mooy lan nañ ko jàngat moo ko wax de yar ak yéegee mooy lan est-ce que mooy jàngale yar koo tëqoot nit bu ngeen tëqoowut mënoo koo yar diw diwa koy yar da ko fekk këram waaye diw diwa koy yar yaa ngi fii ma nga fële yaroo ko moo tax tey yar amatul tarbiyu sikar tarbiyu moo siiw waaye sikar moo am diw day tarbiyu neel diw day sikar rek da ngay sikar ba sëriñ bi gindi la waaye du la yar parce que doo fa nekk moo tax tey nga gis taalibe yi mel niñ mel lu leen neex wax lu leen neex def parce que ñu bari yaruñ leen dañoo sikkar rek taalibe bu mën a doon nag moo xam tijaan bala moo xam murit bala moo xam xaadir bala taalibe yu bari yaruñ leen dañu loo sikkar bañ gindi leen moo tax xamuñu yoonu sax tarbiya xamuñu sax yoonu adab moo tax lu mat a bàyyi xel la